lënd bi ci laa génn ci saa saase defal leen live ne leen gars yi jóg nañ pare nañ ñi ngi doogu ñu ngi noonu di doog ak seen taat yi tàng yi ñu ngi noonu di doog a jóg ci réunion bi nga xam ni conclure nañ ne dañuy dem jëli ji Ousmane Sonko aéronef euh, aéronef euh, euh, tey sax mi ngi woon réparation depuis ci suba bon pas réparation ñi ngi doon xoolaat affaire yi l'aéronef deux cent quatre vingt il y a l'aéronef 295, le, euh, le, CASA 235, les Mi 17 et 35 de la flotte aérienne. nous ñëpp tay ñi ngi woon préparer depuis ce suba aéronef yi nga xam ñi ngi leen di préparer indi nañ seen mécaniciens yi ñu doon xoolaat yooyu gëjoon nañ depuis 4 avril donc euh, nii nii nii yi euh, ñu ngi doon ci réparation yi di leen xamal ni Ziguin Chor il y il y a de cela une heure de temps 90 hommes d'élite dugg nañ fa euh, ci Ziguin 90 di leen xamal ni aussi 90 euh, hommes d'élite dugg nañ Ziguin Chor il y a même pas une heure de temps à travers ay 8 8 lañ duggé fofu ay 8 8 dugg nañ Ziguin Chor wuñ fa ay blendé duggé wuñ fa ay 8 8 lañ fa duggé euh, ñom ñep ñi ngi fa donc le euh, contingent bo sera euh, piloté par Moussa Fall depuis Zik bi nga xamni Moussa Fall ñep lolu mom gis ñep xam nañ ko Moussa Fall mi ngi depuis trois jours mi ngi donc mo wara piloter l'opération à partir d'un poste de commande donc Moussa Fall mom moy commander ses hommes pour ñu dem cueillir Ousmane Sonko dawale ko dugal ko ci aéronef dem ak moom dakaar donc loolu yëpp seen i pexe la yoo xam ne ñoom pexe nañ ko loolu nag waxuñu ko ay góor jigéen waxuñu ko ay caapataat waxuñu ay góor yaay may ma ñeex ay góor yàlla la ñu waxal man maanaam kenn dawul fii da ngay dund baa nga dee rek loolu rek fi am te kenn mënul mucc kenn mënul mucc boo waree dee kenn munu ko parce que suñu borom nu nga juddoo la la defal bés ba ngay dee donc bés ba ngay dee ak fa ngay dee munoo daw a daw daw ba raw ko donc kenn munul dund sax di calculer tey laay dee wala suba laay dee on s'en fout war a dee da jour boobu nga dee ñu jàll ci leneen ñu war a dee dañuy dee ñu dee dee nañ am na ñoo xam ne dugg nañ ci situation bu ne waruñoo dee deewuñu donc ku ci nekk dund nga loolu lu la war a rey bu lay rey rek da ngay dee donc waxuñu pour kenn daw nii gàdd mooy toog daw non on est là dañuy dëggal seen bopp dañuy jëmmal dañuy donc ngeen rek koy pour ngeen am information que ñoom tey dem nañ di préparer seen yi e euh, nga Moussa Fall mi ngi depuis trois jours moom mooy piloter euh, opération bi y a là même pas une heure de temps y a quatre hommes d'élite qui viennent de rentrer à Ziguinchor à peine euh, même pas une heure de temps à arriver avec des huit donc ngeen Euh, di leen xamal aussi l' affaire Ousmane Sonko aji Sarr loolu yaakaar naa ni muus yi sax xam nañ ko ginaar yi di ko sab dara amu ci ay kàcc neen kese la aji Sarr ñëpp xam nañ ko da dem di maase dem génn wax ko ci mbedd mi Sidi Mouhamed Mbaye récupéré ko yóbbu ko jox ko am Mamour Ba Thiam Mamour Ba Thiam yéegal ko parce que day taxawaalu impôt et domaine Euh, waxee ko ki nga xam ni mooy Mamour Diallo Mamour Diallo jël ko def ko règlement de comptam dugal ci ñi ci dugal yëpp affaire bi mujjee salté ngeen gis ni après dugal nañ ci caga ji parce que Dior Diagne dugg na ca euh, parce que euh, Mamour ki nga xam ni mooy Mamadou Mamour Diallo jabaram ak jabaru Gabi Gabi Sow ki nga xam ne moom mooy avocat bi seen jabar yi ñoo bokk ndey ak baay donc euh, xaw ma ci langue wolof ni ñu koy waxee peut-être wujju peccor go peut-être je sais pas donc euh, jabaru Mamour Diallo ak jabaru Gabi Sow ay wujju peccor go ñëpp dugg nañ ci affaire aji Sarr bi doyalal ko waar lool lool lool tilimal ko taqal ko def ko ay règlement de compte gis ngeen ni histoire boo xam ni la Macky Sall da cee jàpp ne dina toroxal Ousmane Sonko rey na ci ay doomu aadama parce que quatorze personnes ñoo ci dee Macky Sall moo leen rey mais yemu ca mu demaat encore di topp traces yi nga xam ni ñi nga xam ne mooy enquêteurs yi amoon nañ ko di leen wàcce benn benn di leen rey ci la rey ki nga xam ni euh, ñëpp xam nañ ko muy les gendarmes Dj Badji mu assassiné ko seyal kooram sotti ko acide si la rey ki ñu naan Fulbert Sambou ci traçabilité yooyu mu ne day effacer trace su crime bi ci li mu def ci la rey ki nga xam ne moom mooy Fulbert Sambou mooy 17 personnes rey na leen euh, froidement ci affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. comme li ñu tàmbale woon wax ci début bi ba léegi moom lañ di wax ba léegi Macky Sall musul bàyyi pexem nee na moom. Ousmane Sonko dina ko dugal ci kasso bi du fekkee élection yi loolu wax nañ ko bayil mun a bàyyiwuma lu ne wax nañ ko ko mun a du ko def donc peuple bi fu nek ni mom fi parce que waji ji la mang koy def ma nga ay nit donc euh, je pense bien que euh, c'est le moment ou jamais de se libérer une bonne fois pour tout euh, tous les Sénégalais parce que waxtu bi jotna donc le pays en état d'alerte maximale j'ai parlé de François Mancabou non lañ ko reyee tamit donc pour traçabilité top ay trace ci lañ jàppee tamit plus de 400 dom adama tej l'en ci kasso bi Dom Nafi Ngom Keïta sax mingi ci kasso bi parce que <laughs> mom boudoul dara xam na Didier Badji Didier Badji nag moom dañ ko daggate këppati ko etc cetera def ko li koy def donc ngeen préparé ou dal le pays en état d'alerte maximale pour prêt pour la révolution di leen xamal nitam tam l'affaire Adji aussi aji Sarr moom ma ngay wootee ay partenaire am mi ngay woo ay nitam euh, pour ñu ñëw gunge ko woo na ki nga xam ni mooy Gabi kan mooy Gabriel kan woo na ko ça fait euh, cinq ou six jours pour mu ñëw gunge ko ci procès bi waa APR yëpp tamit booloo nañ ña ngay defar seen i t-shirt fas yéene gunge aji saar donc ngeen xamee ko noonu affaire politique la parce que euh, Macky Sall ay nitam bu doon Adji saar nit ke simple nit la bu bu wax ñu dem justice mais waa euh, Gabi Kane moom góomu ni dana dem mais woo nañ ko moom Adji saar woo na ko direct téléphone pour mu Euh, ñëw gunge ko ci procès bi ak waa APR yëpp booloo nañ seen i jigéen yi te ñoom ñëpp góor yi góor wat bang yi góor yaay ma ma ñeex yi booloo nañ ña ngay defar t-shirt yi yooyu pour dem yuuxu bu dee Sonko day wuy ji ñu yuuxoo fa toroxal ko jiñ ko violeur di ko saaga ay ndey di ko et cetera et dañoo jóg daal pour jàpp doomu aadama boobu dunduloo ko misère bu musul am ci kaw suuf kooku de waxuma la Sonko mais ku fi doon sa bàyyi jar jar na sax nga takk kamikaasu bomb exploser rey ñoo ñëpp ñi jàpp doomu aadama teg ko di ko toroxal di ko saaka di ko sotti ndox di ko di ko di ko dund looloo xam ne mus kenn benn doomu adama kuñ fu waxoon ni loolu di nga ko dund sax tu tu préfère xaru ko naan da ngay dund kon loolu ngeen taxaw ci bu baax a baax a baax te xam ni projet boobu bu fa Ousmane ko tegee tànkam dina fa dégg lu mu musul dégg dinañ ko fa wax lu ñu ko musul wax ku nopp weñ bu ci takk dee parce que lu salte lañ koy waajal lu salte salte salte te ñëpp xam nañ ni même euh, juge yu ko nar a juge sax ñooñu ba suñ jonn yàlla tey même palais de justice xamuñu donc ngeen jàppee ngeen xamee ko noonu donc euh, euh, ki nga xam ni nag chambre criminelle boobu ñoom pare nañ ko Ousmane Macky Sall nag toog naa ñoom bëriwuñ toog naa ñoom réunion naa ak ñoom lu leer nañ nee na leen bu kenn tiit bu kenn ragal gérer naa seen gage de sécurité jël naa lépp dinaa leen gérer. économiquement lépp loo leen soxla ci alal dinaa leen ko jox dinaa leen gérer ci côté sécurité loolu la leen Macky Sall xamal dinaa leen gérer sécurité parce que ku ci nekk ci ñooñu après di nga am 4x4 di nga am garde euh, GIGN di nga am BIP di nga am garde GIGN di nga am BIP dama ne ñi nga xam ne di nga leen gis suba dem leen tribunal ngeen xool seen tur yi ñi ngi fa seen tur yi ngeen xam juge parce que <laughs> c'est sûr demain dina leer mais instant yi dañoo tëj lépp kenn mënul xam mais jàpp leen ni suba boo leen demee au côté tribunal ngeen xool foofu di ngeen xam ñan ñoo ñoo war a toog ci chambre criminelle bi parce que dañ leen soxla pour mun leen rëbb instant yi nag information génnul fenn parce que ñooñu Macky Sall toog na ak ñoom wax na ak ñoom nee na leen ku ci nekk dina la jox kër dina la jox ay millions dina la jox oto mais nii nii nii nii ci tàng bi eh, dina la jox benn benn garde bip wala benn garde GIGN bien armé pour ku la jege ak sa famille tamit dinañ bàyyi ay ay garde ci seen kër seen famille yi pour ñu garder leen donc xaalis lañ leen proposer oto lañ leen proposé ay terrain lañ leen proposé euh, ñu ngi leen proposé tam pour garde seen famille garder leen instant yi am na ñi nga xam ne nag ci ñooñu euh, dañoo santaane pour ñu jël seen famille yóbbu leen ci hôtel yi am na euh, ñi nga xam ni suba boo leen demee tribunal ginnaaw suba ñi war a toog ci chambre criminelle bi Euh, ñi ci bari seen njaboot yi yóbbu nañ leen jamono ji hôtel ñi ngi ci côté sali ñi ngi ci côté Mbour sa et cetera et cetera bu leen demee seen njaboot yi instant yi installé nañ leen foofu ñi vidé kër yi instant yi pour l'instant bu leen fàtte ni tam waxoon naa leen benn mbir koo xam ne di ngeen koo fàtte mu muy Mamadou Badio Camara nee naa leen Mamadou Badio Camara bu leen fàtte ni ñëpp dañ koy fàtte Macky Sall dafa changé conseil constitutionnel ci ñaari mbir dañ ko fa teg Mamadou Badio Camara pour bu Macky Sall ñëwee mu acceptel ko candidature am pour bu Ousmane Sonko ñëwee mu rejeté candidature am loolu kese lañ ko sant te mu Mamadou Badio Camara déggu leen ko waxu ci mi ngi toog loolu kese lañ ko sant bokkul ci dara mi ngi toog di xaar Ousmane Sonko bu ñëwee mu rejeté candidature am bu Macky Sall ñëwee mu accepté ko candidature am loolu moo tax Macky Sall teg ko fa teg moom tam ci ay situation moom mu ngi ay GIGN koy garder bib et cetera et cetera mais on saura est-ce que GIGN <laughs> moo mun moo mun le peuple wala BIP ñoo mun le wala ñoom ay yeneen extraterrestre lañ bokkul ci Sénégal kenn ko donc le président euh, bi nga xamni moy mustapha Fall xam ngeen ko euh, moom moy président euh, tribunal bi mom def na ci liggéey bu salte mom tamit ngeen nañ ko bolé ci reub demi mustapha Fall nit bu bon la nit bu yées la mom nak mom def nañ sen réunion ñom aussi pour ordonné defar nañ lépp ordonnance de prise de corps bi c'est déjà loolu bind nañ ko ba pare bind nañ ko pare loolu moo tax Moussa Fall ngeen koy dégg côté Casamance depuis trois jours mi ngi fa moo war a piloté pour dooma euh, xaju xaraam yi war a dem attaque ji kër euh, ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko donc def nañ réunion boobu euh, ki nga xam ne nag moo war a diriger moo war a mm, juge bi juger moom bu ngi war xam moo war a jiite euh, chambre criminelle bi moom dina signer signer na li nga xam ne mooy ordonnance de prise de corps bi mooy mandat d'amener et mandat de dépôt donc jàpp leen ni Ousmane Sonko boo leen xullee bañ jël ko dañ koy yóbbu mandat d'amener et mandat de dépôt dañ ko fay téye le temps du déroulement du procès donc Ousmane Sonko dañ ko bëgg a jël ñoom dugal ko ci kaso bi duñ ko bàyyi muy ñibbi ñoom dañ ko bëgg a jël fekk ko foofu jaay ko doole jël ko faqat ko dugal ko ci hélicoptère indi ko taaj ko par force ne ko di nga nangu gars yi dinañ saa dinañ la saaga nañ la lépp di ay yaa ko ak yaa ko daanoog yi mu lay maccal ak maanaam yu salte yëpp loolu yëpp préparé woon nañ ko bu leen ko fàtte yàgg naa leen ko wax bu Adji Sarr bu ñu jëlee Adji Sarr gars yi dañoo jàpp Adji Adji Sarr machine la ñu bëri ñu ngi xool Adji Sarr non Adji Sarr non Adji Sarr dafa dof nag non Adji Sarr travaillé nañ ko bu yàgg ci li mu war a wax waxoon naa leen ko boo leen demee di ngeen di ngeen dégg li Adji Sarr di wax li muy wax yépp ne wax na ci euh, pooju Ousmane Sonko bi ne dafa am benn cicatrice ay ay wax na loolu yëpp préparé na ko maanaam Adji Sarr préparé na lépp ay dafa daanu dafa mballu sama kaw bu bu mu kiyee ma ne ko bul daanu sama kaw loolu lépp Adji Sarr préparé na ko donc Adji Sarr ça plus de un an préparé nañ ko ci li mu war a wax parce que dinañ ko laaj buñ ko posé question dina expliquer waa ji di ko jàpp jaay ko doole parce que viol répétitif la wax viol répétitif donc waxul benn waxul ñaar waxul ñett waxul ñeenti nee ay viol répétitif la donc dina expliquer bu ci nekk nan la ko def ay da ko juutal da ko laf lii da ko laal da ko nii ak ci ay fen ci ay kàcc ci ay caaxaan lépp ci ay kenn fen ci ay kàcc donc loolu ñoom préparé nañ ko euh, fële nga xam ni moom mooy ci mbuur def nañ lu ñu war a def yëpp lu ñu war a wax yëpp kon Adji Sarr bu ñëwee benn machine la rek buy répété benn machine buy ñëw rek ratatati dem yoonam moo tax ñu jël ko garder ko bien bon di ko jox lekk di ko jox naan di ko di ko toppatoo en attendant lii lañ doon xaar ngeen euh, préparé ko nuñ ko waxee donc euh, donc ki nga xamni moy Mustafa euh, Moustapha Fall ñom def nañ préparé nañ pour ordonnance de prise de corps bi euh, ak ki nga moy mandat d'amener bi ak mandat de dépôt bi le temps du déroulement du procès Moustapha Fall moy président du tribunal de la grande instance mom mo remplacé Abdoulaye Ba Abdoulaye Ba mom mo waron nek président chambre criminelle mais comme mom accepté wul def yëfu xaram accepté wul euh joxulen ay garantie pour condamner Ousmane Sonko loolu moo tax ki nga xam ne mooy Moustapha Fall tëbal ko wax ko Ismaïla Madior Fall Ismaïla major Fall moom dafa dafa soxla ko ay jox ñi ñi nga xam ni dañuy pare pour jox ko ay garanti comme quoi que dinañ condamner Ousmane Sonko bi nga xam ne préparer woon nañ temps yee passé euh, ça fait presque quatre à cinq mois préparé nañ seen chambre criminelle boobu gars yi commencé nañ gis yan juge ñoo war a juger Ousmane Sonko donc ci lañ gis ni Abdoulaye Ba dafa a juger Ousmane Sonko Maintenant, Mustafa Moustapha président du tribunal de la grande instance TGI a Abdoulaye Ba parce que nangul a garantie comme quoi que Ousmane Sonko dóor ko ci kaso bi donc bu mu bañee ne moom xalaatul loolu dossier bi xool na ko de fond en comble gisu fa viol gisu fa kuñ tëddee gisu fa kuñ juutal dara amu ci ay kàcc la donc moom nee na du dugg ci loolu moom Abdoulaye Ba na ngeen ko bàyyi xel moom Abdoulaye Ba nee na bu ñu ko joxee dossier bi moom en tant que président chambre criminelle bu mu xoolee nee na lii ay caaxaan la ay naxi kese la ay naxasa xandang la man ki nga xam ne maay Abdoulaye Ba du ma ko nangu duma ko def te du ma ci dugg tey du ma ci dugg ëllëg xalaat naa suma borom ci loolu moo tax ñu jël ko sànni ko Cees donc génne nañ fofu non légui ñu tëjaat après li nga xam ne chambre criminelle amutul benn info bu fa génn ay nit yo xam ñoñu gis nañ te nañoo Macky Sall mom ci bopam proposé na leen ay kër proposé na leen ay terrain proposé na leen ay huit huit proposé na leen ay garde proposé na leen top sen njabot yi garder sen njabot yi donc loolu yëpp proposé na leen ko donc ñom am nañ ay garantie de sécurité euh, financière matérielle et tout loolu motax ñom fassiyé nañ def li nga xam ni mooy sale boulot bi donc Ismaïla Madior Fall euh, ki mu ki ñu choisir moom ak Moustapha Fall euh, ki ñu choisir euh, moom pare na pour liggéey pour condamner Ousmane Sonko ñu def ko ci kaso bi donc ngeen xam ko noonu bërki démb nag am na réunion aussi réunion bi ki nga ku ko jiite woon mooy le juge Tidiane Lam Tidiane Lam nag moom mu jiite inspection générale de l'administration de la justice Le Nanko, i gage. inspection générale de l'administration de la justice Kiko dit tijan Tijane Lam bon defal na l'en une réunion de débriefing avec 10 personnes 10 juges L'olip de dañ ko indi woon après pour une mission de contrôle des dossiers de l'affaire Adji Ousmane Sonko bu ñu ko joxee dossier bi de lire de fond en comble tout gars yi gars yi na ko waaw mu ne leen lii viol amu ci tout le monde sait que y pas de viol tout le monde sait que y a pas d'arme tout le monde sait sait fii amul ay affaire armement ay rey ay nit ay menace de mort loolu moom na leer na leer te dossier bii moom moo leen ko wax moom Tidiane laam leen dossier bii ay nit dee nañ ci rey nañ ci ay nit ba pare daq nañ ci ay liggéeykat parce que ku mel ni euh, euh, kii euh, euh, Cheikh Omar Touré ki ki nga xam ni moom mooy euh, le médecin Alfousseynou Gaye ñu ñëpp génne nañ leen ci ray ci ay doomu adama té lépp ay tiaxan la donc jàppale ne le juge Tidiane Lam bi nga xamni moy jité l'inspection générale de l'administration de la justice né na leen këyit bii ngeen bëgg a pour tal réew mi këyit bi dara nekku ci nix newu ci wax na leen ko ne leen nag ñi nga xamni paré nañ pour def du sale boulot né dañuy condamné doomu adama lak ci dëkk ah bu fekkee ni jaral na ko ah mi ngi mais moom bu ko dossier yi fond en comble gis ni dara ba dara booloo donc euh, donc viol répétitif amu ci armes amu violence amu ci donc ngeen euh, jàppee ko noonu. léegi nag li ma leen euh, xamal aussi parce que. Euh, doomu aadama yi mënuñu am yaakaar ci ab nit ay ay ay ay nitu xaram bugg a ñëw ne dañ koy éliminer dañ koy Casamance affaire bi du mbirum Casamance dama ne man je sonne l'alerte pour le peuple état d'alerte maximal pour le pour pour le pays on parle pas de Casamance on parle pas de Casamance parce que même Casamance yëpp bu ñu génnoon ñooñu ñëw fa ak seen i fetal rey fa ay nit tëdd na xoolal dañ koy yóbbu donc dëkk bi yëpp moo war a tàkk benn région bu région bu nalaw nañ ko jàppee ni mooy région góor jigéen suba la région yi di wane parce que yii la daq wax ay booy Kaolack laa ki naan booy Gosaas laa ki ay man booy Louga laa xoolal suba lay leer ba ñuy xam ñan ñooy góor yi ak ñan ñooy góor jigéen yi région góor jigéen yi suba lañ koy xam suba la ñuy xam yan région ñoo nekk ay région góor jigéen ak yan région ñoo nekk ay région góor yan région la seen yaay jur leen ñooñu ay góor lañ suba lañ koy xam parce que Sénégal ñoo dàq bandi bandulu ay man boy town la man booy nan nanta la man dama deugur fit ki nan man boy kaolak la boy nangam suba lañuy xam ñan ñoy boy nangam suba lañuy xam suba bu shor tak tak tak tak tak ëpp lu kaolak tak ben kaolak Kaolack quoi du taxaw ci kanamu sor wa ah, nan ko ay man boy kaolak la lem ko ba mu rongo tok ci ba bu mu desee bu goor da nga dang ko lem da nga daw donc suba lañ koy xam kan moo fi war a taxaw naan ay man waa Louga laa wala waa saint laa wala waa Kaolack laa wala waa Mbacké laa wala suba lañ koy xam suba la waxtu wane góor sa góor jot suba la waxtu jigéen ñi wane Amazon suba lañ koy xam bu weesoo loolu suba ak ginnaaw suba wala ak lu ko topp ku fi taxaw naan man man booy nangam laa danañ la ñuus ndax bu mu jotee nga war a génn wane seen bopp wane wu leen ko donc suba nag mooy suba moom mooy xeexu góor yàlla yi suba moom mooy njàmbaarte bi suba la doomu aadama yi di taxaw suba la région yi war ku nekk di wane ni fii la Maba Jaxu bàyyeekoo kay naan fii la Alburi Njaay bàyyeekoo kay naan fii la euh, euh, Kumba Ndoofeen bàyyeekoo kay fii la euh, kii nga xam ni Valdiodio Njaay bàyyeekoo ku ci nekk suba nag la ñuy xam say maam lan lañ fa bàyyi woon lan mooy meññeef fi donc suba incha allah à partir de demain et après ñuy continuer lépp dina leer bu soobee yàlla dinañ xam yan ñooy góor yi ak yan région moo ëpp góor jigéen yan région moo ëpp wat bang góor yaay may ma neex ñu toog di xool ñuy subir ainsi yeneen dëkk yi di tàkk mu toog di seetaan wala di taal ñaari pën ak benn almet ak benn donc suba la lépp di leer incha allah suba la lépp di leer ñu xam ñan ñooy góor yàlla yi ak ñan ñooy jigéenu talaatee ndeer yi incha allah nga xam ni région boobu booy dem takk jabar wutil foofu jabar région bu wane gën a wane ngóoram ngóoram booy takk jabar dama wuti fa jabar jigéen tamit ku la ñaan si suba xool leen bu baax boo amee ay dëkk yoo xam ne ay góoru wat ba nga fa nekk buñ xeex jotee xeexuñu ku la fay ñaan si su jógee foofu bu la nee waa Kaolack fekk waa Kaolack xeexuñu bu ñëwee bañal te xam ni góor góor jigéen lañ exemple laajo joxe bu fekkee yéen góor yi boo leen di ñaani jabar à partir de ñi nga xam ne ñoo célibataire xool leen ci région bi nga xam ne ñoo wane ni jigéen seen jigéen yi jàmbaar te dëgg bu xeex jotee dañoo génn jaayante ko boo fa takkee jabar takk nga ko baax takk nga koo xam ne du la mus a trahir takk nga jàmbaar takk nga koo xam ne boo mettee dina taxaw tax bu mettee taxaw na boo bu mettee dina taxaw bu neexee dina taxaw du la mus a trahir boole xool leen bu baax nag suba lay tàmbale incha allah yéen it jigéen ñi boo luwut jigóoru bu baax góoru jàmbaar boo xam ne pare na pour taxaw yow bu mettee bu naqaree situation yu ne dina taxaw jaayante ko gar ci bakkanam boo leen di wut loolu xool leen région bu ci gën a tàngal bu ci gën a boyal bu ci gën a wane ngóoram bu ñu leen di takk ngeen laaj ko yow waa fan nga ngeen xool région bu ci gën a yàmbar kuñ la ciy ñaan bañal te xam ni ay góor jigéen a fa ne bés buñ lay rey day daw parce que dafa gis nga ñi ngi rey nit yi mu daw bés bu ñu lay rey day daw dina la trahir kon nag ku suba la ñuy xam lépp suba la affaire yëpp di leer ku nekk xam ban dëkk nga war a dem wuti jabar jàmbaar ku nekk xam ban jëkkër nga war a wuti ji ak ban région nga ko war a wuti jee bu dee tàppet nag nga xool góor dëkk yu gën a yambar nga dem xool leen dëkk bu ëpp góor jigéen góor wat bang góor yaay ma ma ñeex nga dem xoole fa waaw donc mi ngi noonu donc comme ñu koy waxee yàlla du fay wax bàyyi jëf wax nañ lu ñu war a wax yëpp lu fi des moom mooy jëf jëf jàmbaarte taxaw jëmbal jubal comme Macky Sall nee na dina taal dëkk bi dinañ ko ko taalalal parce que moom moo ne da koy taal comme nee na da koy taal indi na almetam teg ñun dinañ ko sottil essence bu mat sëkk sëkk laa wax indi na ay almetam teg yanu na quatre-vingt-dix hommes d'élite yóbbu Ziguinchor ñu dugg fa ak ay huit huit dem jël Moussa Fall bàyyi fa def ñu muy def yëpp préparé euh, tribunalam te préparé euh, chambre criminelle am préparé ay nitam préparer lépp ñun peuple bi tam dinañ préparé wu taxaw comme moom defa yore almet rek dinañ ko ko sottil essence ba mu doy tant que mi ngi taal ñu nañ ko sottil essence bu mu ko bu bu koy taal loolu moom <laughs> naka jekk na ko préparé incha allah te xam ne ñun peuple bi pare nañ euh, nation bi pare nañ pays bi nañ pour la révolte pour l'indignation Inch'Allah. donc nous avons ko que nous avons fu nekk euh, diversion Nous avons bañ une defuñ sax ay opération parce que ça prend beaucoup de temps parce que nous divertir on est en guerre Nous nous préparons pour dem au front pour dem euh, pour dem à l'assaut donc nous fi nek naan ki diw diw diw na diw diw diw na diw parce que situation bu nek ak euh, lu fay xew am na bu fekkee moment bi nga xam ne opération rek bu dem dina ñëw ci moment bu mu gën a apaisé woo mais pour l' instant nii nii nii nii nii euh, wu jox ku nekk arme la pour ñu dem guerre ji maanaam fu nekk dañ nekk di séddale kalachnikov yi dañ nekk di séddale RPG-7 yi et cetera et cetera dañ nekk di seddale bomb yi ku ci nekk ne jox ma kalachnikov bi ki naan jox ma atomique bi ki naan jox ma nucléaire bi ki naan jox ma RPG-7 bi ki naan jox ma AK-47 bi donc fu nekk nii ku ci nekk ñu ngi la tegal en bandoulière bandoulière sa fetal bi nga war a demee xeexi donc fu ne ci loolu lañ toll donc ñu fi nekk di wax ay waxu kii diw ne diw kii moo ko laal kii moo ko mballu kii man nangam ak nangam foofu romb nañ fa donc di leen wax ni ngeen jël numéro bi jël leen seen euh, seen seen euh, téléphone yi yéen ñëpp jël leen seen téléphone jël leen seen bic jël seen feuille ngeen bind numéro bi numéro bu am importance la numéro boo xam ni

imbécile di woo ci la ko politiciens yi di woo ci la ko caga ji di woo lépp ci la woo moroomu cagaam yi donc ngeen jàpp 221 mooy numéro Adji Sarr 77 841 28 46 buñ ko may jàmm fépp fu waay nekk ci àdduna bi ci diaspora bi ñu woo ko buñ ko may dara nañ ko woo saaga ndayam menacé ko xamal ko ni foo dugg ni ñuy lëkk lokkatee say numéro noonu lañ lay lokkatee fu nekk nii aji saar mi ngi sali kon yéen waa sali jóg leen taxaw te xam ni caga ji caga boobu noonu mi ngi seen dëkk bi ki taal dëkk bi mi ngi seen seen gox ki nga xam ni moom moo yàq réew mi ngi seen gox kon sali boobu ba léegi aji saar mi ngi fa toog ca euh, euh, këram ñu wutal ko beneen kër parce que bee passé kër gu mu nekkoon ak numéro bu mu nekkoon maa génne numéro ba génne kër ga mu daw kon numéro Adji Sarr nii mais ba léegi mi ngi sali changé na mais jógewul sali donc Adji Sarr mi ngi sali porte daal yéen waa sali jóg leen jàmbaar yi fa nekk sali jóg leen yéen bañkat yi yéen ñi nga xam ne yéen yaroo ci ndox mi nekk ay bañkat nekk nit lu am doole nit yu gore dooleen sàcc dooleen leen lekk alalu ger doo leen luubal caga jooju ñu indi jëlee ko ba eh, ban ba ba ci kii ba mi ngi ma nga foofu nga xam ni eh, jëlee ko Ndakaaru Njaay jël jub waa Dakar bañ ko rejeté ko ndax caga la génne ko ci dëkk bi ne baaxul ci kër baaxul bàyyi ci àll bàyyi baaxul bàyyi ci kër waa dakaar ñoom bañ nañ génne nañ ko fo donc boobu ba léegi mi nga ca sali di càggatu foofu noonu donc yéen waa sali jóg leen taxaw na Adji Sarr génn seen dëkk boobu xam ngeen fa mu ne parce que sali réyul ma nga fa moom Adji Sarr numéro mooy 221 77 841 28 46 il faut l'atteindre psychologiquement il faut l'atteindre mentalement nit kese la ragal la tàppet la amul bopp du dara na ngeen ko xam bërki démb laa ko infiltré récupérer numéro am dugg ci benn groupe toog toog di ko xaar mu ñëw laajte moom moo laajte numéro bi numéro bi kan la am ku ko ne Mollah Morgun la mu ko waxee loolu euh, dafa foog woon sax xam naa euh, comme man yu fa jinn laay def dañ maa récupéré donc mu ñëw Mollah Morgun Mollah Morgun ah Mollah kii après kooku ne ko mais yow Adji Sarr da da nga def benn audio wax nangam ci waaw bu leen ma dugal ci lii de daw. donc loolu moo euh, j'ai pas eu le temps de récupérer plein d'informations donc mais numéro de la déjà amené naa ci numéro parce que ça sama stratégie le man de pour avoir le numéro de et sa localisation je vais expliquer expliquer plan de ma donc lii dinañ ko atteindre psychologiquement physiquement mentalement intellectuellement cocktail je yi au Sénégal je nañ mi ngi gars yi pare ne dugg cocktail molotov 221 77 841 28 46 les gars dama leen di wax comme gis nga guerre bi nee naa leen man kamikaze il faut ngeen def attention ci samay mbir man je suis Sonko 200 pour suis musuma pour yakal Sonko mais Sonko dafa am soldat bu dof newuma Sénégal te dama war a xeex donc sama xeex bii même fille dama war a ma man néew ma Sénégal mais je suis l'absent le plus présent au Sénégal guerre bi yëpp maa ngi ci maa ngi koy diriger comme nu Moussa Fall mel nañ ko yónnee foofu noonu muy commandé man noonu laay commandé xeex bi donc ci leen ci laa moor gën bu leen jàpp bu leen gis tëll ne noo day xeex Mollah Morgun ku laal Sonko mu rey la ku jege Sonko mu rey la loolu nguur gi si boppam xam nañ ko ku jege Sonko mu dóor la bomb ku laal Sonko mu rend la parce que moom fonko le gëm Sonko le fonko Sonko le jàpp loolu lepp lu mu def pexé lepp lu mu def ay pexé la ciy jublu loolu moom na leen leer lépp lu ma ump tamit dina xol ban situation la mën def pour récupérer ko quand j'ai voulu savoir cette vidéo bu faux bobu nonou mun naa leen ko expliquer légui seen vidéo bu faux bi vidéo bu faux bobu nonou photo bu faux bobu mo ma jox vidéo bu faux bi bu ma joxuloon photo bu faux bobu du am vidéo bu faux bi wax naa leen ne même Aliou saw photo il a essayé de m'appeler mais comme il n'a aucune information je ne l'ai pas répondu mais Aliou Sow a tenté de m'appeler sur mon WhatsApp mon numéro sénégalais 77 641 53 24 Aliou a essayé de me joindre sur mon numéro WhatsApp sénégalais je l'ai pas répondu parce que amul benn information te j'ai eu ces informations comme quoi que il est financé par le gouvernement sénégalais ñoo ko jox xaalis ñoo ubbi journalam etc. cetera et cetera comme moom mbuutu duus la awma jotam moo tax décroché wu ma ko mais moo ko décroché woon tamit dafa lay nekk Mollah big up te dégg naa dem na ci télé bi ne pourquoi ngeen di weddi Mollah Morgun Mollah Morgun war leen ko weddi parce que donc gis ngeen pexe bi ma def ba génne ennemi Sonko yi parce que ennemi Sonko yi am na la ñu làqoo wax ponkal yi ñooñu ñoo te photo bobu mo len indi photo bu faux la photo bu c'est pas professionnel dara new ci mais appât la pour kep ponkal yi nek ci ginaaw yore pexe yu rëy te duñu feeñ donc ñoom comme Mollah Morgun mo len no xex bu tourner gis lenen rek dañ naan kon Mollah ñew na suñu camp kon lolu motax ñom tamit ponkal yëpp a ci le yirim sec mi genné waxna len ko weddiwu ko ci le yirim sec genné ci lañ créer sen groupe WhatsApp duggal ma fa ma tok ci la ma Aliou saw jéemee wo WhatsApp ci le ponkal ci nguur gi ah <laughs> voilà non voilà voilà, voilà, instant yi commencé gis carrément nit la day day day du du yalla. day day day xorom day donc def pour voilà, xam ponkal yi nga Ousmane Sonko ci di pour ko éliminer am

musuma wàcc si sama yoon musuma wàcc si sama yoon samay pexe nag samay pexe léegi nag bu aji saar bi nii laa ko defee tamit aji saar dama dem loqati dama dugg këram fu ñu ko dugaloon génn adresse bi génn numéro jox leen ko affaire bi dafa def tole bu garaaw appel yooyu noonu dafa jaxase foofu jaxase gouvernement bi après bu mu sonnee même malgré mi ngi doon jéem a kii parce que nit la aji saar du góor sax boo koy woo di ko saaga ndey di ko menacer day day déstabiliser waxuma laa jigéen Adji Sarr du dara dof la buñ koy bu ngeen koy woo di ko saaga ndey di ko menacer di ko nalawatul muy daw fu ne muy paniqué wu donc loolu lu amoon solo la psychologiquement da ko atteindre Adji Sarr waratul nalaw te numéro bu ñu ko tegal ba génnewaat parce que man ni pexe kese laa man ni pexe kese donc nu ma def nooy damaa ñëw ci ki nga xam ne mooy Gabriel kan ma ne Gabriel kan Adji Sarr dama yor trois ojo trois audio yi nag Adji saar nee na da nga koo sàcc trois audio laa yu aji Sarr wax ni yow Gabriel kan dañ laa jox un million information ah, information bi tam am na de mais aw ma audio bi mais information am na Gabriel kan dafa am benn tubaab bu ko jox Adji Sarr dafa dem di jëw Gabriel Kane dafa am benn tubaab bu ko jox bu koy jox un million par mois un million la koy jox par mois benn tubaab boo nee day jàppale Adji Sarr Gabriel Kane moo wuti tubaab ba mu ne da jàppale aji Sarr léegi nag Adji Sarr dem ci ay nitam ne leen Gabriel kan daf maa sàcc Gabriel kan dañ koy jox un million mu dem di ma jox trois cent mille sàcc sept cent mille yi Adji Sarr di ko jówee ñeneen ñooñu di ko jëw di ko jëw ba mu yegg si sama nopp parce que man fépp laa infiltré fu ma infiltré ma dégg information boobu ma ne ok kon yaa am na tubaab buy joxe un million par mois Adji Sarr di jaar ci loxo Gabriel kan Gabriel kan di jël 700000 di joxe 300000 d'accord donc ma ne leen ma ne ma ma ne ko ma dem ci loolu information au lieu ma ne ko dama ko dégg ma ne Gabriel Kane yot naa audio aji Sarr nee na yow dañ lay jox 1 million. 1 million bi nag cent 300000 nga koy jox cent yi yaa koy sàcc xam nga jigéen da ngay day teel a gis boppam donc Gabriel Kane ma kan man non loolu am na commencé yàbbee donc foofu tam ma ma commencé récupérer information ci Gabriel Kane mu commencé yàbbee ko parce que mi ngi défendre boppam loolu amul mu du tubaab sax nit bu ñuul la moom moo ko joxe woon moom un million la wallaahi jaaratul ci sama loxo xoole fii lay jaar lii lay def commencé yàbbee ko joxe information yëpp ma ne ah d' accord kon information ok kon tubaab kooku di joxe du tubaab nit bu ñuul la mais loolu un million yi Gabriel Kane am na wala amul mu ne si am na un million yi moom am na wallaahi chèque la du ma ko laal ne day fenn day nangam ma ne ko waa d' accord kon un million yooyu am na kon am na nañu yéen yéen am na nañu ay lobby yu wër aji saar ñi koy jox ay million ngeen di ngeen di feex daal ngeen di féex loolu am na kon kon lu gars yi wax naan yéen da ngeen di dund ci aji saar am na non man billaay laalu ma dara ma ne ko ok d'accord ne ko léegi wax ji lu ko gëddoon lu ko gàttal dugalal aji saar hésité na nag dugalal aji saar mu ne ma non moo laa jox ma audio rek ma ne ko du ma la jox audio yi dugalal aji saar dugalal aji saar loolu yëpp maa ngi pour capter numéro aji donc gis ngeen lu plan bi ma tek pour mën récupérer ay information ci Gabriel kan, récupérer ay information pour dem nak jëli Adji Sarr mom ci le démé ba dugal di insister di insister di insister bu mu duggal Adji Sarr bu mu dugal Adji Sarr nak Adji Sarr ñëw gis numéro yi ni wa numéro bi mom numéro kan la numéro bi Gabriel kan nako nimori bi bii numéro Mora Morgan la mu kontaan mola <laughs> morgan Mollah euh, euh, waaw ça va yéen a ngi si jàmm euh, maa ngi koy déglu yow enregistré numéro bi voilà Morgan Gabriel Kane ko waaye yow Adji Sarr yow yow da ngaa dem di ma jëw ne un million yi nga xam ni dañ la ko jox nga ne dama cee sàcc nga ne dama nanga nangama ndax Adji Sarr déedéet bu la mën dugg ci yu mel nii man yi nanguma ko àndu ma ci te xoolal mais yow Gabriel Kane yow rek daw génn bu mu génnee na état ba la woo bu mu tag mu premier coup kii nga xam ni moom mooy Mati trois pommes yu nëpp la woo Mati trois pommes yu nëpp boobu maa ngi wax ak Gabriel Kane képp Gabriel Kane ci ligne bi Mati trois pommes di woo Gabriel Kane tin tin tin tin ba yónnee ko message urgent urgent urgent urgent boobu tiit nañ panique état bi paniqué wu na maa ngi liggéey ñoom ci guddi gi état bi paniqué wu na Adji Sarr daw na woo ministre yi woo ñëpp ne wuy sama ndey moo laa képp na sama numéro moo laa laa dégg ci téléphone bi moo laa laa moo nekkoon ci téléphone bi Gabriel Kane jaay na ma message yëpp maa ngi ko yor yu mu yónnee Gabriel kan wuy sama ndey Gabriel Kane jaay nga ma Mollah Morgun kon yow lii nga doon xaar te jour boobu noonu ci la Adji Sarr woowee Gabriel Kane pour mu ñëw gunge ko ci palais de justice ci palais bi jour boobu la Adji Sarr vingt ci Adji woo gab vingt Ndakaaru Ndiaye Adji Sarr woo Gabriel Kane pour mu ñëw gunge ko. ma ne ko nee naa Gabriel Kane nag bés boo ko gungee bu ñuy taal dëkk bi dañ taal sa kër bàyyi. xam nañ adresse bi xam nañ lépp dama ne bés boo ko gëngee dinañ taal sa kër baay nay leer wax naa ko Gabriel kan te gars yi préparé wu leen am duñ bàyyi kenn l'ennemi képp ku ñu ennemeel dañ lay ennemeel coup pour coup œil pour œil dent pour dent amuñ ci xarit amuñ amuñ ci dëkkandoo képp ku ñuy xeex dañ lay xeex te buñ la waree rey dañ lay rey donc noonu laa keppee Gabriel Kane ci ay information loolu moo tax Gabriel kan ci parce que maa ko imposé pour mu dugal Adji Sarr pour mu leer léegi bu mu dugalee Adji Sarr j'ai récupéré le numéro de aji Sarr WhatsApp

atteindre ko psychologiquement physiquement mystiquement lepp luñ ko mën atteindre ñu songu ko parce que dëmm la mo tal suñu dëkk ray suñu frère ray suñu sœur lak dëkk bi donc ñu kooku ci complice la bok té képp ku laal aji sar complice nga dinañ tal sa kër dinañ la ray lepp luñ ñu dinañ ko def parce que dañuy guerre donc ngeen paré ci donc amna whatsapp amna lepp moy numéro bu mujj bi bu leneen ñëwé tamit ma def neneen rek parce que man jinne la fépp la dugg donc noonu laa def ba récupérer numéro bi nga xam ni mooy numéro Adji Sarr euh, euh, xam tamit ni am na ay lobby yu ko wër yu koy jox xaalis bu bari ñuy caaxaan di foo di ree di leen xamal ni même la fekk que Adji ànd ak papam dem euh, fi nga xam ni mooy Kaolack dinaa leen expliquer tey lu xew gisoon ngeen fi Adji Sarr ànd ak baayam ñu dem fi nga xam ni mooy Kaolack demuñu fa woon pour ziyaare ji déedéet dañoo dem dañoo aji saar daa dem di yàq deru xalif général day ñeseen ak MC Niass ak MC ñoo aji saar daf ne xalif général bi bu mu ñëwee fi nga xam ni mooy palais de la république Macky sàll jox na ko fa alal gu bari pour mu pour mu ab mu jox ko aji saar ak MC Niass ñu toog ñoom aji saar ne xalif général day ñeseen je pèse bien mes mots ak MC Niass dañoo dañ koo triandé Adji Sarr ne MC Niass ak xalifa général des mourides dañ koo triandé après ci lañ ne MC Niass daw dem États-Unis Adji Sarr mooy wax de mu ne MC Niass daw dem États-Unis dañoo sàcc alalam MC Niass dem États-Unis xalifa général bi mënul dem donc ñu ne Adji Sarr ànd ak baayam pour ñu dem laaj xalifa général des Niassènes seen xaalis donc dañoo takkal la xalifa général des Niassènes kilifa gu day noonu ne dafa dóor da leen dóor xaalis xaalis boo xam ni dañ ko waroon jox papaam xaalis boo xam ne daf ko maanaam Adji Sarr lañ ko war a jox mu jox ko baayam donc ñu ne MC Niass en complicité ak le xalif général day Niassène kullu Niassène kilifa gu day noonu ñu ne Adji Sarr ak ay nitam ne fenal nañ xalif général des Niassène nee nañ dafa jël xaalis ci au no de Adji Sarr et de sa famille war ko jox famille ba mu tëdd ci moom ak MC loolu moo daw MC Niass mu génn daw dem fi nga xam ni mooy Amérique dafa triande xaalis ba loolu ci euh, entourage u Adji Sarr bi ak Adji Sarr moo joxe information boobu loolu moo tax mu ànd ak baayam ñu dem foofu ne dañuy laaji ji si xalif général bi seen xaalis donc ngeen xamee ko noonu donc du woon ay visite u euh, ziar du visite dara visite dem réclamer xaalis la nee nañ dañ leen a triande nee nañ xalif général deñe seen di leen a triande ak MC Niass ngeen jàppee ko noonu donc loolu moom de sur sûre et claire mais information bu ci ne à chaud dinaa ko am dinaa xool kañ laa koy traité ak nu ma koy traité ak fan laa koy traité parce que wax dafa jooy ñu ne ko lu tax ngay jooy mu ne da ngeen maa wax fi ngeen ma war a warta waxee wax di jooy ñu ne ko lu tax ngay jooy mu ne da ngeen maa war da ngeen maa wax te wax waxtu bi ngeen ma warta waxee donc il faut ñu déglu wax parce que wax dafa am fu ñu koy waxee ak nuñ koy waxee ak kañ lañ koy wax ñetti yooyu yëpp dafa am ci wax donc jàpp leen ni daal lii la ay Sarr nee na MC Niass dafa daw ndax da ko triandé moom la xalif général des Niassènes nay leer nañ ñun ñëpp laal nañ mooy maa Mahi Niass ñun ñëpp laal nañ ñu laal nañ suñu fois saagan nañ ñu may caga nag lu mu la wax rek <laughs> mi ngi noonu ay caga lañ ay bandi salta lañ loolu moo tax bàyyi ja dem ànd ak mais demuñu woon pour siyaare après gis ngeen amul fu mu donc euh, loolu moom mooy lu ñu leen di wax maintenant loolu mooy pexe bi nga xam ni expliqué naa leen ko mooy boo leen dégg noonu Mollah Morgun nangam dugg naa foofu noonu pour am fa ay information ba jot numéro Adji saar xam lan mooy wër foofu donc loolu lépp stratégie la euh, Sonko dafa am lu Macky Sall amul parce que Sonko dafa am ay technicien dafa am ay borom xel dafa am ay cerveau yi dam au front di loqoti di indi di détourner di contourner ay pexe xam nga di di di espionner donc Sonko yàlla da ko may loolu mola morgan nak du kat bu ñew rek and ak Sonko rek di yuuxu nii ben ab bop la cerveau la jang na xam na lan moy l'ingénierie sociale xam na nan lañuy infiltrer xam na nan lañuy eh, eh, nan lañuy espionner parce que dama ko lire piratage de cerveau lolou mom damay pirater ce cerveau tok ci kawam léegi tok di dox samay dox donc euh, di leen xamal encore une fois aussi te vidéo boobu noonu bi ma defee loolu sànni piège boobu noonu ñoom ñu am seen i benn vidéo boo xam ni wax naa leen ko ñoom ñoo ma ko wax ñoom ñoo ne ma ñoom préparé nañ fi vidéo moment te début la début ba bi nga xam ne Adji Sarr moment bu tàng bi Adji Sarr Ousmane Sonko gaa yee kii te amuñu benn information dañoo woo Gabi Perez ak Idan Perez noté leen bien ñooñu ñoo jàpp lu gaa yi di tëj lu gaa yi ñoom la

téye ko ci lépp donc dakaar mi ngi ci loxo yi Gabi Peretz ak Eden Peretz lépp luy information lépp li nga xam ne tey bu fekkoon nañu bëgg ñoom def Dakar dóom Gabi Peretz ak Eden Peretz mun nañ soppi dakaar dóom ci benn minute benn minute parce que pouvoir yu doy waar lañ am te ñoom ñoo les points stratégiques yëpp jox nañ leen ko foofu lañ taxaw tenir Sénégal ci loxo donc Gabi Peretz ak Eden Peretz yi coow li bu mu ne kër bu amee ay dee ay nit yu ñu rey ay agent secret lañ euh, nee naa leen ay sioniste lañ ay agent secret wu euh, état euh, israélien lañ ay israélien lañ donc loolu moo tax Gabi Perez moom moo yombalal Macky Sall pour mu jënd ay armement israélien gis ngeen drone yi ngeen di gis drone yooyu di def ay lacrymogène nag armement yi ngeen di gis yëpp quatre-vingt-dix pour cent ñi ngi ko jëndee Israël lu ko def loolu nag mooy mooy parce que Israël ak Palestine oto yi ngeen di gis noonu blindé yooyu Israël lañ ko jënde léegi nag ren ñoo rom yombal contrat boobu Gabi Peretz ak Idan Peretz yi nga xam c'est des Israéliens sionistes ñi yi rey nit yi di wër di rey nit yi ci doomu aadama donc ñooñu ñoo ko dox ñoo ko yombal moo matériel yooyu ñooñu la israéliens yi di xeex ak palestiniens yi oto yooyu ngeen nekk di xeexal nii 4 avril yi ngeen doon gis 90 pour cent armement yooyu yëpp Israël la que Gabi Perez mo yombal affaire ba Eden Perez ak la France etc. donc Gabi Perez ak Eden Perez bu mu ont commencé am ay dé ñooñu dañ leen dañ leen wo comme amuñu preuve ñu wax leen euh, ñu probe laaj leen nan lañ pour am preuve genre film wala vidéo dem pour ñu incriminer Ousmane Sonko donc loolu nag vidéo boobu demeewuñ ko defee ko fenn vidéo boo xam ne la Dakar ñu jël ay israéliens yu sophistiqué ci xam ñëpp xam nañ leen Israël juif yi ñëpp xam ne yàlla dañ leen a may xam-xam loolu du tey dañ leen a may xam-xam juif yi yàlla da leen ko may may leen di pexe moytu leen ci pexe ak ci xam-xam ñooñu nag dañu leen déplacé Idan Perez Gabi Perez buñu waxé ñoñu dañ leen déplacé ils se sont déplacés ñeu Dakar ñi ngi nekkoon fi nga xamni moy sen siège bi fu gendarmerie nationale siège gendarmerie nationale nekkoon fofu lañ leen tégal ay bureau jox ñu dëkk ci hôtel yi ñu jox leen ay caméra jox leen tout sophistiqué ñu jox. Buñu joggé dem nañ fi nga xamni avant ñoo euh fi nga xamni moy mooy Beauté dugg nañ fa jël fa maximum dimanche yobbu. première fois ñu ñëwaat encore àndaat ak aji Sarr ak seen équipe nuitamment dugg fa ñi ngi fa dugg ay côté 21 une 22 vingt heures ñu ànd ak Adji Sarr dugg fa ànd am na yeneen góor yu fa àndal ñu dugg fa bu ñu fa duggee def nañ fa seeni film def nañ fa lu professionnel génn ak seeni bagage dem seen yoon donc ils ont eu maximum d'éléments yu ñu mun a monter defar ko pour mun a incriminer Ousmane Sonko donc

gaa yi ñoom ñi ngi ci ñi naan leen numéro ma bloqué ñi naan waaye mi ngi neex nekk leen ci acca nag monde bi yëpp woo leen woote leen woote leen nag nag tas taf saf saf jax guddi googu moo guddi googu ma jël numéro boobu noonu Adji Sarr nalawul toute la nuit woo na Sénégal yëpp ba Macky Sall xam na ni dugg naa Adji Sarr infiltré naa ko récupéré naa numéro la guddi gi sax ci boppam parce que Antoine Diome yëg na ko Antoine Diome bu mu yëgee Adji woote na bu ñu waxee ñu Gabriel kan lañ ko jiiñ saaga nañ ko wax nañ ko lu nekk mais Gabriel kan moom sama cerveau attanu ko Gabriel Kane jigéen la attanul sama cerveau man sama cerveau Macky Sall sax nu ko ma laa sama cerveau nu day daane ñeneen ñu dul Macky Sall sama cerveau daa euh, euh, bu bu ma ko dawalee daane na fi ñoom Yérim sekk daane fi ñoom euh, journaliste bi nii nga xam ni moom mooy Aliou Sow daane fi yeneen ponkal yi nga xam daw nañ ñëw ci man donc cerveau boobu xajul ci Gabriel Kane sincèrement man Gabriel Khan, c'est une sœur dama ko yeureum jigen la febar xam nañ ko man sama sœur ci sax ci Gabriel donc vraiment loko wax ko parce que euh, donc comme niñ euh, maintenant bi nga xamni montage monte lu ñuy monte li ñu monte nag film bu ñu guddi la déglu leen bu baax de ba ma ñëwee dóor samay pion ñu ñëw foog ni falaa far ma yaat ma yaatal ku ci nekk ba nga ñëwee Mollah Mollah non Mollah t'as bien fait non Mollah non Ousmane ma ne oui Ousmane kay oui Mollah Mollah Mollah may déglu waaw ma ne acca gars yi jox leen ma armement yi ana ñu am vidéo yi ñu ne telle personne telle personne telle personne telle personne ñi ñu am vidéo yi sitel ma quatre personnes ñoom ñii ñoo yor vidéo ma la ah, ñii ñoo yor vidéo yi ah d'accord ah gars yi dañuy dañuy sédé li may wax nee nañ wooy tu as raison gendarmerie dugg nañ ñi ngi fess del ñi yor nañ yor nañ vidéo yi ñi koy enregistrer man maa ngi fii lu ma leen di wax moom man man nekkuma ci ay fen ak ay créé non <laughs> bu bu ma amul information du ma génn man sama information ci kaw élite bi laa koy jëlee ñoo jox leen dem sama yoon gàññewu ma ci dara donc man talu may fen talu may wut lu ma la wax takkal téere nit mënu ko dindi moo laa àdduna dina neex ba naqari ba dëkk bi tàkk ba ñëpp dee moo laa fen amul parce que dund lu ma fen lekkaloo man rappeur laa bañkat laa dama mus a xeex talu may fen talu may créer lekuma ci facebook lekuma fenn xif moma ma gënal di di lek sax ay alalu facebook ak alalu youtube ak du du dundé dundé dundee ay vue intéressé wu ma voilà du ma politiciens dundé bi gis ngeen bu ngeen bu ngeen fi boycotté ki nga xamni moy euh lu mu tudd bu ngeen fi boycotté euh, Barthélemy Diaz fi la taxaw naan may leen ma di may leen ma fii leen ma ngir yalla di joy man ba ma dóoree sama plan ñee ñiy boycotté musuma wax may leen ma vie musuma wax kaay leen jàpp ci suma wax partagé leen musuma wax aimé leen musuma wax liké leen donc kii bokkul ak ay Barthélemy Dias kii nii toog nii du Barthélemy Dias wutu may vie intéressé wu ma wutu ma ma bëgg wutu may partagé du ma live ba ne leen dof ngeen ko kël benn bañ kat ngeen ko sëkk xol dama nekk man nekk nekkuma sax ci monde bu gaa ay nekk nii ay xol ay partagé leen jamais leen kii xaaroon gi boobu dama crazy nekkuma ci seen monde man nekkuma sax ci seen monde bi nga nekk nii seen monde virtuel bi ay xool Barthélemy Dias di jooy may leen ma vie may leen ma vie keneen partagé leen keneen aimé leen man foog partagé foog aimé foog vie foog like foog nekku ma ci caaxaan man damay guerre dama am a crazy nigga am a crazy nigga am telling you man nekkuma sax ci monde bi ngeen nekk noonu ay monde virtuel boobu noonu tunduma ko et puis je passe Qu'est-ce que arrêter on n'arrête pas la mer avec ses bras donc vous expliquer la vidéo après nous bon depuis ils ont tout fait pour indi ay pexe Ousmane Sonko nous dañoo monté ci de Nous Ousmane Sonko mais déjà nous avons vidéo bobu non c'est très difficile très difficile c'est professionnel parce que dañoo fay ay nit yu dugg ci ay hôtel ñëw tok professionnel jang nek ci ay l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle mën nañ la jël yow sa bop duggal la ci vidéo té yow yaangi tok toog nangam mën nga tok Kaolack nangam ñu jël duggal la ci vidéo defal la c'est l'intelligence artificielle monde bi mo toll ci ben niveau bo xamni ci benen vibe la

du lool de donc ba ñu ñëwee dangay gis Sweet Beauté guddi vées yi lumière yi lépp ñu jël genre caméra bi newul ci mur yi dañuy def benn caméra boo xam dafa mel ni ci digg bi lañ ko teg imagine leen nan la Ousmane Sonko di ñëwee nan day violé nit caméra bi nekk ci digg bi caméra bi ci digg bi caméra bi dañ ko def ci digg bi defuñu ko ci miir rek xool caméra boobu noonu dañ mel ci digg bi lañ ko def loolu mënul ne parce que Ousmane Sonko mënul ñëw Sweet Beauté réyul benn néeg bu simple la buntu ba du tëju euh, kii mi ngi ci mi ngi ci ginnaaw bu leen fàtte loolu yëpp élément yooyu bu leen fàtte ni Sweet Beauté moom lu ñuy wax Ousmane Sonko kii mi ngi fa woon euh, Ibrahima euh, Koulibaly mooy jëkkëru ki nga xam ne moom mooy kii Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye donc ñu jël seen benn nee na teg ko ci digg euh, salon bi Ousmane Sonko ñëw ñu ngi sol benn blouson bu noir film bu ñuy teg ñoom ñu ngi sol benn blouson bu noir blouson ils sont intelligents nag parce que li ma waxoon noonu lañ ko doxalee Ousmane Sonko bu mu ñëwee. xëcc chaise bi foo Ousmane Sonko entre guillemets entre guillemets nag xëcc chaise bi def nii toog liñ leen nara woon nag pare leen de déglu leen bu baax vidéo bu ñu leen naroon feeg bi Ousmane Sonko toog ñu ne sumi mbub mi def nii sumi mbubb mi mu des sous bu weex lii nag bés boo leen ko seetaanee taal leen dëkk bi yëpp yëpp lii lañ leen di woon lii musu leen ko dégg nag musu leen gis ko koy caaxaane parce que loolu professionnel dañ ko def denc mosoo leen dégg boobu ba léegi yéen a ngi dégg waxi vidéo moo laa moo dugal photo indil leen seen foo vidéo bi kenn mosu koo gis mosuñu ko teg mosuñu ko won mais Ousmane Sonko nag won nañ ko ko muy reetaan loolu c'est vrai Ousmane Sonko won nañ ko ko muy reetaan ay ree la ko def <laughs> dafa dafa ree ba sonn dégg naa jour bu ñu ko wanee vidéo dafa ree ba daan ñu suuf de mais Macky Sall du nit <laughs> Macky Sall bëri na caaxaan il que loolu moom information bi ñu ma jox ci Ousmane Sonko la quoi ndeysaan donc Ousmane Sonko bu mu toogee summi mbubu blouson bi lonk ko def sous bu weex buñ leen ko wanee rek Mollah waxoon na leen ko donc def nii sous bi def nii sous-vêtement bi comme nu ñoo leen waxee woon def nii sous bi def nii ñu koy maase di ko ma aji saar keneen new fa aji saar ay vieux yeeg yu rouge yeeg yooyu aji saar di maase Ousmane Sonko def ni aji saar di maase maase ko ba pare sa fou Ousmane Sonko defaat nii wàcc kii bi après dem summeeku deseg benn silip caleçon dugg ci biir jacuzzi bi seen vidéo bi ñu wane Ousmane Sonko dugg ci biir jacuzzi bi jacuzzi bi nag ndox mi mi ngi am ay couleur genre rouge rose yooyu noonu ndox mi quoi xam naa lumière yi la jacuzzi bi ba pare am ay fleur ay fleur yi ñu ci sànni ci ndox mi ay fleur xanaa ni ndey xadi xam naa dina reetaan dina ne <laughs> wax man man sama jacuzzi bi kañ laa ji def ay fleur donc ñoom seen jacuzzi bi ñu préparé dafa am ay fleur couleur bi ndox mi da ngay gis ndox mi dafa xaw a rouge dafay jël couleur lumière bi euh jeu de lumière yi donc ñu da sanni ci ay fleur rouge mu melni piscine buñu ñu rafetal naan xaw ma man seetaan ay réel la ba def <laughs> ma wax yow nday xam ne fu mu jëlee yi muy def fi ak coquillage donc après Ousmane Sonko euh, ci biir film bi Ousmane Sonko duggu ak tubéew donc Adji Sarr mom mom original ñu ko won mi ngi sol sen kimono xam ngeen kimono mi euh, euh, euh, kimino suite beauté suite beauté bo xamni dañ ko tak sont fi lañ ko tak kimino bi dafa xawa ratax dafa ratax genre la bu parce que dafa ratax bu bu bu rose wax orange la aji sar, sol aji sar, mom la maasee Ousmane Sonko ni nga woné nak Ousmane Sonko mi ngi yoré euh butéelu kiyam bi frotté bi massage bi mom la yor bu mu ñëwé mu jox ko Adji Sahar jël mbum mi summi ko lonku déssé sous-vêtement bu wéx donc comme genre peignoir la Adji Sahar solo Adji Sahar ubi ci kii bi massage Ousmane Sonko def ni Adji Sahar di commencé di massé di massé di massé massé massé lu ñu massé ci film donc bu mu ko euh, Adji Sarr maasee comme ni ñu ko waxee entre comme ni ma leen waxee woon film bi rek laa leen di wana bu ko Adji Sarr maasee entre guillemets Ousmane Sonko sumeeku nee na sol tubéyam dugg ci jacuzzi moo tax ba leen dégluwee bu baax intelligent da ngeen di gis ni njabootu euh, ki nga xam ne mooy Macky Sall. leen naan Sarkozy donc fa ngeen ni film la boo xam ñoom dañ leen xamal ni mosuñu ko gis dañ leen xamal ni donc affaire bi ci bi nga leen leen bu ngeen histoire bu mu faut que gens, nitu euh, Macky Sall yi Sarkozy rek lañ Sarkozy Sarkozy ministre Zakouzi, député Zakouzi. parce que le film, la le <laughs> xam nga vous leen ci table massage bi waxuñu leen ay dañoo taxaw noonu Sarkozy lañ leen donc film bi laa le di lañ ko defee donc ci jacuzzi bi ñu wone Ousmane Sonko dugg ci jacuzzi bi wara sangu légui aji sar ñew taxaw ci buntu jacuzzi bi def ni mel ni kuy wara xol Ousmane Sonko mu wara sangu quoi donc Ousmane Sonko ci seen film bi Ousmane Sonko téé loxo aji sar pour xëcc ko pour mu ñëw ci jacuzzi bi. premier tentative aji sar xaw a bañ ci film bi aji sar xawa téé loxo bi bañ bañantu mais wul ba légui fu mu taxaw.

yéen ngi suivre action suivre leen bu baax la ba leen dox parce que di ngeen dem ñu tegal leen ko ngeen ñu seen nday ñu ñëpp man lépp laa génne donc Adji Sarr taxaw ni mu taxawee noonu di film film Ousmane Sonko jéem a xëccaat le faux Ousmane Sonko jéem a xëccaat loxo Adji bi pour xëcc ko pour mu ñëw ci jacuzzi bi Adji Sarr bañaat deux tentatives mais Adji Sarr ba léegi jógewul fi mu taxaw troisième tentative ñu ne Ousmane Sonko la foo Ousmane Sonko téye ci loxo bi xëcc Adji Sarr bàyyee dugg ci Sarkozy bi summi li mu sol ci ginnaaw ci ginnaaw li ñu façon lonk ko Adji Sarr dese benn euh, nu ngeen koy waxee euh, soutien gorge boo xam ni ci ginnaaw comme kuy dem plage ci ginnaaw fas dañ ko fas yooyu xam ngeen ko yéen jigéen ñi genre soutien gorge yi nga xam ni day day def nii ci ginnaaw dañ koy fas dañ koy fas donc mel lu koy dem plage bu mu summee affaire suite hmm, beauté ba lonk ko mu ngi Adji Sarr mi ngi euh, dese slip ak euh, euh, maillot de bain maillot de bain yu am fas ci ginnaaw slip maillot de bain fas ci ginnaaw dugg ci biir jacuzzi bi ñu Tambalé def sin, yefu fo Sonko boobu ak Adji def sen yefu say say fofu lañ ci yam Adji pare mo ñëk a ñi né ne Sonko bi euh, daanu Adji sar ci suite euh, ci ci di dox di dox dafa film après ñu ne Ousmane Euh, comme foo Ousmane Sonko bi soloon tubéy mu solaat tubéyam daw yëkkati di yëkkati Adji Sarr di ko laaj mbaa gaañu woo wala mbaa faxas faxastal fekk Adji Sarr moo def benn genre film daal film mel ni kuy kuy trébuché di xaw a toog nii xaw a toog mu toogee Ousmane Sonko le faux Ousmane Sonko ñëw génn ci tëb ci sakku si bi daw ñëw di ko yëkkati pour moom nga xam ne moom mooy aji Sarr jóg donc euh, après bu ñu paree ci loolu film boobu la ñuy yor moom lañ leen di tegal léegi ok na vrai Ousmane Sonko film ana viol ko def vrai Ousmane Sonko quoi ko film ana viol question la je demande à 17 millions de sénégalais film bu préparé bi nga le procès film bobu procès wax ma fa ana viol répétitif bu viol am fa ana viol ana armement yi fétal ñaari kan lañ fa kan lañ fa dóor wax leen ma legi Macky Sall day taal ab rew ndax li léegi film bobu legi wax leen ma lan da tekki ci gis viol lan moy viol bi legi niñ ko def sax ne Ousmane Sonko wax Ousmane Sonko léegi ñun dañ ñoo wax viol dañ ñu ne procès viol répétitif ak violence viol répétitif ak violence motax buma leen ko laajee ma laaj gaay ñuma won vidéo bi ma leen mais kon vidéo bi ngeen deñ mu ne waaw vidéo bi la Macky Sall la denc ak ay nitam spécialement pour toroxal Ousmane Sonko ma ne ko mais lii viol amu ci ñu ne ma mais sa waay yow Macky ngeen foog ni da ko neex ngeen ay Ousmane Sonko euh, mu sell mi Ousmane Sonko yaaram bi Ousmane Sonko yeneen tub Ousmane ngeen foog ni loolu ay Ousmane Macky Sall chaque jour mu bëgg a xaru ndax li ngeen di wax naan Ousmane Sonko yaaram bi Ousmane Sonko nangam na man ma ko kon lii kon pour la naan viol bi. mu ne ma boy vidéo bi moom xaw ma nu ñuy def ba mais viol moom mu amu ci viol amu ci donc vidéo boobu nu ñuy wax noonu même malgré tout amul viol amul violence amul armement donc ab film indo lañ leen tegal kon nag Sénégal bés boo leen toogee ñu jaay doole ak lépp luñ mën a def ba def procès boobu xam naa tey duñ nalaw nag ndeysaan ca yàlla man moom buñ ma mënoon rey rey nañ ma bu yàgg <laughs> man maa leen jommal lu ñu teg ma teggi ba 2024 24 kenn mënu maa tere 2024 le 4 avril incha allah 2024 ma teewee ko 4 avril défilé ko Ousmane Sonko mu dugg ci biir palais bi ma takkaat samay bagage ñibbi man du ma du ma Souleymane Jules Diop xanaa mu soxla sama expertise dama moo laa soxla naa sa expertise ma ñëw joxe sama expertise point wutuñu ci fukki dërëm fukki dërëm wutuñu ko ci lu may am fi mënu ma ko am de leen ni vidéo buñ ko wax leen violence deux pistolets <laughs> donc arrivé wuñu même si malgré toute cette manipulation arrivé wuñu ci le à leur fin donc moo ñi nga xam juste pour yàq deru Ousmane Sonko xam nga Adji Sarr préparé léegi Adji Sarr ñoom lu leen ci neex mooy nu ñu toroxalee Ousmane Sonko Adji Sarr taxaw ñii taxaw di kii waaw man man def maa jàpp mu juutal ma di di ma laal di ma dóor il est vieux loolu lay wax te déglu leen bu baax nag lu ma leen wax ngeen gis ko Adji Sarr bi ñu ko woowee fii muy dem ci juste muy dem euh, bureau Maham jàll waxoon naa leen li fay xew ne naa leen Adji Sarr pare nañ ko ne ko pour mu wax ne video bi da doon foo

bii buñ ma seetaanloo amul viol amul violence amul fétal dara vit, dara amu fa donc boudé lool la amu fa donc tak, da fay wara tax dekk bi yëpp tak ñëpp jeex mu jeex Macky Sall tul diriger ci parce que boudé li vidéo bi nee naa leen li vidéo bi moo tax li li lii ñu ne ma wa ma leen vidéo bi ni ñu Macky Sall ray ñu fi ray vidéo bi ñu tal dekk bi kon vidéo bii la bii bii bii ñu ne ma waa ma leen bii moom bu fi génnee dañuy taalaat dëkk dëkk bi day jeex Sénégal dootul exister ci carte bi dëkk vidéo bii bés ñu ko fi tegee maa la waatal ci daraja Seydina Mohamed ku ci nekk bu xoolee nit yu ñu fi rey ak lu ñu fi def lépp ndax vidéo bi dëkk bi dina jeex takk Sénégal day génn ci carte mondiale bi dootul exister xalaat doomu taal kenn du fa des ñëpp dinañ yanu seen li ngeen di seetaan ci télé dina am ñëpp yor seen bagage yi di génn di exode di daw ñii di dugg Mali ñii di dugg Guinée ñii di dëkk bi set guy set wecc ñu taal lépp parce que kenn du seetaan ak li ñu fere yëpp lii la wax naa leen ko ne leen lii ñu ne ma ah man leen d'accord dinaa ci préparer sénégalais te teel leen a wax ne lii lañ nar a joxe lii lañ fi nar a teg sénégalais yi ñoom ñi fi wax viol rey fi ay doomu aadama avec violence rey fi doomu aadama lii la d'accord nañ ñëw dañ bu dee dañoo yeb sénégalais nañ ko indi donc léegi liñ ci liñ ci jublu comme ñoom luñ ma wax rek information yi ma doon jëli wax naa leen photo boobu dafa am solo de <laughs> photo boobu ak am solo donc ba ñu ñëwee parce que loolu moo loolu moo tax ñu dugg ma photo boobu moo tax ñu dugg ma buntu la pour ñu dugg ma récupérer maximum yóbbu wax naa leen nag sama ñetti dëgg nee naa leen da ngeen di ngeen di dëkk bi jeex na képp ku ci am famille ne ko mu dajale ay bagages am dëkk Sénégal jeex na parce que loolu dañ buñ ko fa tegee léegi nag ay Sarr dafa am luñ ko préparé luñ ko préparé lii la wax naa leen ko wax ja di ngeen ko fa fekk wax naa leen vidéo bi di ngeen bu ñu leen ko tegalee taal leen fu day fekk sax dëkk bi di tàkk donc lu ci tegu mooy parce que Ousmane Sonko bu ko seetaanee ay xaaxataay la ko def luñ luñ ci teg mooy. état baa ngay woote état yaa ngay woote parce que ñamay tudd seen tur ña ngay woote donc dëkk baa ngay tàkk dëkk baa ngay tàkk jàppaleen Sénégal dëkk baa ngay tàkk dëkk baa ngay tàkk gaa yaa ngay commencé woote ñamay woo ñi ngi seetaan portable boobu laay live portable boobu laay live ñamay woo ñi ngi seetaan donc dëkk baa ngay tàkk dëkk ba ma jàppaleen ni seen autorité toogatuñ taat yaa ngay tàng dëkk baa ngay tàkk donc loolu moom jàppaleen ko yëngal maa ngay commencé yëngal action yaa ngi nii ñi ngi ñi ngay ñëw ña ngay ñëw dëkk baa ngay tàkk ña ngay yuuxante ña ñëpp ña ngay yuuxante ña ngay woowante Gabriel Kane woo nañ Gabriel kan Kane mi ngi may jéem a woo Gabriel Kane muy jéem a woo fii direct Gabriel kan maa ngi live fii maa ngi live maa ngi live maa ngi live fu ne ni dëkk bi gouvernement ba ña ngay yëngutu donc ñun dañuy continuer ñun suñu stratégie dañuy continuer suñuy xeex kenn duñu arrêté donc Gabriel Kane yow mi di ma woo parce que gouvernement baa ngi lay woo menace de moo yeeg yooyu yëpp jàppal ni maa ngi live nel autorités yi ñu arrêté gum après yéen maa ngi leen di dégluwaat encore ñun dañuy continuer suñu guerre donc lii film yi nag du Gabriel Kane numéro téléphone bi moo commencé tàkk gouvernement ba xam naa ñuy dóor pression Gabriel kan te man Gabriel Kane samay pexe nee leen Gabriel Kane attanu ko samay pexe Gabriel Kane attanu ko Gabriel Kane du ci dara attanu ko lu ma ko wax leer na naññi affaire Adji Sarr bu ci duggee bu bëggee reelu ay njabootam wala taalu ay njabootum seen i kër na ci dugg parce que dëkk bii bàyyiwuñ kenn ku ci dugg ci compl complice nga te buñ lu ñuy def ñee dinañ la ko def. te bu boobaa nag doo am kenn ku lay gardel te di nga xam ne Macky sàll talul jël ay nitam di la ko gardeloo sa kër wala di la garde nay leer donc euh, lan lañ doon bëgg wax parce que duñ buñ tiitee dañuy commencé di woote fii partout xam nga rek ndeysaan donc li ma li ma doon wax lan la fan laa tolloon donc di leen xamal ni lépp ay pexel la donc Adji Sarr dañ ko indi pour mu toroxal Ousmane Sonko. Ousmane Sonko kilifa gi mu doon ak fi ñu ko tolleele Adji Sarr dañ ko indi pour mu wax ni Ousmane Sonko yàgg na ko tëddee mais ni ma leen di wax nii dafa rafet de tribunal bi amul ay dafa ko tëddee de juge yañ fa teg dañ leen wax ni nañ bàyyi Adji Sarr mu exprimer wu pour toroxal Ousmane Sonko. donc ay ay laalanta la ñuy wax ay dafa ubbi tubéyam daf ma kii dafa ma doon juutal di ma dóor dóor ay gulaale yi tàng jër di ma agré balaa daanu daf may agressé donc loolu lépp di ngeen ko dégg bu dee procès boobu bu Ousmane Ousmane Sonko du dem dee ko gënal parce que du toog day ni moom kilifa bu day ni moom ak nu ko audilee ak fu mu toll toog Adji Sarr naan ay daf ma doon dóor buy dóor balaa daf ma doon këdd daf ma doon loolu yëpp da ka ciy wax violence boobu loolu la yàgg na maa tëddee daf ma doon dóor daf ma doon dama dem ba ragal nangam ak nangam vidéo bi mooy dernier bi fekk na mu laal ma ba sonn fekk de daf ma doon buy daanu daf may dóor daf may këdd donc yooyu yëpp jàpp leen ni Adji Sarr pare nañ ko ko pour mu wax ko pare nañ ko tamit pour mu wax ni bu mu koy tëddee bu mu ko yàgg tëddee musul sol protect xam nga usman Sonko toog kilifa gu day ni moom Adji Sarr di wax ni usman Sonko da koy bàyyi leen woote bi bàyyi leen woote bi après ngeen woote maa ngi fi donc dafa Adji Sarr dafa nar a def procès moral toroxal Ousmane Sonko wax ne da koy yàgg tëddee dafa yàgg daanu ci kawam doonu sol kaput moo loolu moo tax muy wax waxu biir ak ay yàq biir bu leen jéggi ci début ba ñu ne Adji Sarr doon na wax ne pour yàq biir n'est-ce ay yàq biir dégg ngeen ko ci donc dafa bugg ak ëmb bi donc parce que dafa bëgg wax ci procès bi parce que dina juge bi da koy laaj lan motax nga waxoon ëmb donc day expliquer comme quoi que kon Ousmane Sonko entre guillemets fen ne Ousmane Sonko ko mus a ak sans protect image len Sénégal yépp tok Ousmane Sonko tok ñaari soxnam tok kilifu gu day noonu tok adduna bi yépp tok ñëpp di sétan ñu naan procès public loolu rek procès public procès public lañ ko wone ci télé yi procès public la lañ ko wone ci télé yi lañ ko wone ci journaux yi lañ ko nangam. C'est une journaliste préparé l'éjaculation de Sonko l'éjaculation précoce les coups mortels de Ousmane Sonko les sans capote de sans capote

looloo ci gën a garaaw malgré lépp après dañ ko ci bugg a tilimal ba mu takk tëjaale ko donc Sénégal wër ngeen këpp ñu leen di wax ngeen préparé wu ngeen déterminé wu ngeen nekk ci li ngeen nekk te kenn bu leen divertir je serai toujours là à vos côtés à combattre parce que révolution bii dañ ciy taxaw dañ ciy jëmmal dañ koy jëmmal dañ ciy jëmm donc lépp lu ñuy fexe dinaa ñëw donc euh, di leen bàyyi fii pour l' instant waaw sodomiser lépp lépp mi ngi ci biir di ba pare naan ay Ousmane Sonko dafa am ci wetu fii euh, cicatrice dafa am ci pooj bi cicatrice mais magum jëmm gu dee ne Ousmane Sonko Adji Sarr réunion xam naa ko taat na lay def nangam tubéyam lay sol fii am na cicatrice ci wetu capitaine bi am na cicatrice léegi Ousmane Sonko day day taxaw ci procès Adji Sarr diko wax lolu après juge ne ko wa mais monsieur Ousmane est ce que mën nañ dem ci douche bi nga won sa kenn sa cicatrice bi nek fi Ousmane Sonko moy summi yaramam bi ngay xol cicatrice quoi lolu lepp def nañ ko fi lepp mi ngi ci bir pour toroxal waa pour def waji du tekki dara kuñ ko don def sa baay nga xaru kuñ ko don def sa baay nga takki bombu dóor ñepp dé mu jeex tak doo ko nangul kenn kon kenn du ko nangu kon soyez prêt soyez ready pour le combat final l'assaut le dernier assaut mon équipe sauver ou périr vivre ou mourir vivre dans la dignité ou bien mourir dans la dignité ou bien vivre dans l'esclavage on n'aimerait pas et on n'acceptera pas de vivre dans l'esclavage kon a gagné, à bientôt inshallah N'y ñi ngi déglu suivre instant yi gis déglu information tout taxul teg lu am rek dinañ leen jox dinañ ñëwaat parce que réseau yëpp mi ngi capté à chaud mun nañ leen sax ubbil mun naa def fii live quatre heures du matin bala ma gisee rek daw leen ñëw bu ma live quatre heures parce que information yu ma am à chaud bu tàng tàng tàng assaut bi attaque beeg lépp danaa leen wax lu am lu ma for maa ngi seen kaw lu ma for maa ngi seen kaw mun naa leen yee quatre heures du matin jóg leen jàmm la euh, fu nek ni gaay bu len bàyyi appel yi appel dal parce que Gabriel kan bi may wo xam nga numu expliquer plan bi donc ñi ngay ña ngay bëgg ray rey ngay bëgg a <laughs> bo dafa defu mën nañ ko ci ray de mën nañ ko ci sax ray Gabriel kan mo manam buñ ko rayé suba jàpp leen gouvernement be ko ray parce que Adji sar Gabriel kan moko jaay te Gabriel kan jaay ko de ngeen numu lay leen wax Adji sar wër na ba ci gouvernement ne Gabriel kan moko jaay te Gabriel kan jaay ko man sama pexe Macky mu mënu ko attan moom njabootam waxuma laa ay ay Adji Sarr wala ay Gabriel Kane ku toog fii di saaga sa ndey subaa ngoon guddeeg bëccëg ki nga boobu ba léegi nga naan nga jóg sa ministre sa ministre des affaires étrangères jóg ma saaga ndeyam mu ñëw fii mënu fi jëlee sa ministre de de la justice ñëw. seen ministre de seen kan moo fi njëkk ku fi njëkk kii Macky Sall moo laajte pour ñu déporté ma gars yi na ko sa nangam taan ndayam kii kii kii contourné la kii mënoo ko jël. parce que fi ma yéegal baar bi la Macky sàll dem toogee na le ñu yónni ministre de la justice ministre des affaires étrangères jigéen jooju caga jooju noonu maire caga boobu kooku ñëw fi def def document am jox gars yi rejeté ndayam na ko kii da du sénégalais parce que duggee fi kaw kooku dellu. kii nga xam ne mooy Ismaïla Madior Fall taxaw bii këram di yuuxu naan billaay bii boy bi lañ koy jëli décembre bii moom décembre ba kenn ci waa këram ne moom moo laa jógal taxaw décembre lañ lay jëli ma ne ko dañuy duul dañuy kàcc dañuy fen dañuy duul dañuy kàcc dañuy fen Sénégal bu ma fay dugg càkkas bin bin càkkas càkkas bin bin ñi ñu koy tëgg ruccax gin gin cacacacax gin gin man xoolal Mollah nu muy duggee biir Sénégal càkkas gin gin càkkas càkkas gin gin xoolal Mollah nu muy duggee biir Sénégal càkkas bin bin càkkas càkkas bin bin ñi laa defee ca yëpp tout le monde 2024 eh xool leen Mollah nu muy duggee biir Sénégal cakas bin bin cakas cakas bin bin cakas bin bin cakas cakas bin bin cakas bin bin cakas cakas yee mu ñëw taxaw di dox ñëpp gars yi di ko bu tax gin gin ratax tax gin gin ratax gin gin ratax tax gin gin may dox nii cakas bin bin cakas cakas bin bin cakas bin bin cakas cakas bin bin cakas bin bin cakas cakas 4 avril 2024 incha allah kenn mënu ma fi jëlee du Assane Diouf duma <laughs> sama grand nu Macky sàll ñi ne ko duul kii du sénégalais dugul dugg fi ndax sénégalais kii dugg fi en tant que sénégalais donc mënuñu la ko jox yow doo kii du sénégalais mu dem yónni ministre des affaires étrangères mu defar ay documents am yónnee ñu delloo ko ko ne ko duul fessé merde kii du sénégalais mënoo ko topp du sénégalais ñu jëlaat ki nga xam ne mooy ministre de la justice am préparé lépp ba kenn ci mbokkam yu ko jege lool ne ma Ismaïla Madior nalawul suba ak ngoon guddeeg bëccëg benn équipe bu justice la indi kër gi ci biir këram apartement am jabaram nalawatul ay doomam bu tooy xepp nalawatul ndax ay nit yu toog biir këram di préparé spécial dossier de rapatriement pour Mollah Morgun décembre bii passé lañ <laughs> ne kenn woo ma ne ma Mollah Mollah Mollah jógal sa bopp la nalawatul lan la mi ngi ci kër gi indi fi ay justicier ñu toog fi di bind di préparer ay documents décembre lañ la bëggee ma ne ko day duul day kàcc day fen day duul day kàcc day fen ne ko day duul day kàcc day fen mu ne ah ma ne ko billahi Ismaïla Madior bu mu dugalee Sénégal ma xaw bu mu dugalee biir Sénégal ma xaw mahamud Ismaïla Madior Macky Sall bu mu jógalee Sénégal ma xaru maay seen bàyyi mindset mindset xel mi moo fi bind ay taxi yu jommal Sénégal xel bi moo fi nekk ba léegi bopp bi kii bopp la cerveau sénégalais ñoo ko sàgganee moo tax boo xoolee sa naan dof la non moo la kii dof la kii dof la parce que sama cerveau attanuñ ko beneen niveau beneen niveau la sama cerveau attanuñ ko mun na toj Sénégal moom Sénégal dafa tuuti ci man sama sama cerveau xajul Sénégal donc Ismaïla Madiar dugal ñu rejeté ndayam mu tok lool motax ñepp ñi ñu APR di mëna a am dañ koy dello ba légui ma ngi ni tok jek taru di gëna sañse di gëna set di gëna clean di gëna nek ak lex yi rëy di saga seen ndey yi te mënuluñ ma dara tout si rien nada donc ba ci ki mu mujj Mamadou Lamine li moom moo salee masali Mamadou Lamine masali barki déew ngeen ne dama porté plainte ma saaga ndayam na ko damay ubbi sa ndànkam taanu nday ba léegi gisuma plainte gisuma këyit gisuma bu mu parce que ku muy bind sénégalais la Mamadou Lamine masali bu demee ak ay avocat am ne am na sénégalais bu ma fi saaga bu sap qui s'appelle Mouhamadou Niass ñu ne ko duul fe c'est merde le Mouhamadou Niass qu'on connaît n'est pas sénégalais donc man gisuma këyit Mamadou Lamine masali gisuma këyit gisuma citation directe gisuma plant police woowu ma gendarmerie woowu maa ngi nii di càkkas gin gin càkkas càkkas gin gin càkkas gin gin càkkas càkkas gin gin eh xooleen moo laa nu muy doxee biir di saaga sa ndey te doo mun tus ñu naan nañ ko dem jëli nañ ko yóbbul commando kii munu leen ko jël Sénégal munu ko jël Macky Sall munu ko jël Mamadou Lamine Massaly munu ko jël mu tudd Ismaïla Madior Fall munu ko jël kii euh, euh, Aïssata Tall Sall munu ko jël amul sénégalais bu ko mun a jël benn sénégalais munu ma jëlee fi maa ngi dox kuul naay ci lekk surnaan ba bandi nekk ci sama jàmm nekk ci sama salaam di dox samay oh la la oh la la naa leen deux mille vingt quatre ñeen may doo gis cakas bin bin cakas cakas bin bin waaw mi ngi noonu ku la wax ku la gëmloo ni mun na ma jëli ne ko da ngay duul lu Macky Sall mënul du kenn ko mun donc gars yi fii lañ tolloogu ak yéen guddi na da leen bàyyi ngeen dem mais jàpp leen mun naa leen fëgg n'importe quelle heure leen jóg leen live tegal leen lépp Sonko for life Sonko à vie Sonko focus 2024 ba palais benn pexe du fi sotti benn yëfu doomi xaram du fi sotti benn complot du fi sotti benn manipulation du fi sotti benn manigance du fi sotti Sonko ba 2024 Sénégal taxaw leen tout le monde tout le pays debout Sonko le ñuy gunge ba palais Sonko le ñuy le ba palais Sonko le 2024 ba bir palais Sonko 2024 Koukaïté, la mère de sa mère n'est pas encore née moi Sonko celui qui m'arrêtera celui qui me mettra en prison la mère de sa grand-mère n'est pas encore née parce que le peuple est debout le peuple est prêt pour la révolution Koulal Sonko dee ku jege Sonko dee ku jublu Sonko dee ku joxoñ Sonko dee kuy pexeel Sonko dee quatre kon nag Sonko la yàlla fal nañ ko faale ku faalewul Sonko bu leen ko faale Sonko la yàlla fal nañ ko faale ku faalewul Sonko bu leen ko faale Sonko la yàlla fal nañ bu leen ko faale sonko la yàlla fal nañ ko faale ku faalewul sonko bu leen ko faale sonko la yàlla fal nañ ko faale kuy fexeel sonko di nga sànku sonko ku ko songu sànku sonko ku ko songu sànku sonko ku ko songu sànku sonko aywa Sonko ku ko songu sànku Sonko ku ko songu sànku Sonko ku ko songu sànku Sonko aka sa paral Sonko ku ko songu sànku Sonko ku ko songu sànku Sonko songu sànku Sonko aka neex a faral Sonko Sonko ku ko songu sànku Sonko ku ko songu sànku Sonko ku ko songu sànku Sonko aka neex a faral Sonko ku ko songu sànku Sonko songu sànku Sonko ku ko songu sànku Sonko aka neex a faral Sonko Sonko ku ko songu sànku Sonko ku ko songu sànku Sonko ku ko songu sànku Sonko ku ko songu sànku Sonko ku ko songu sànku Sonko aka neex a faral aka sàppaaral sonko ku ko songu sax ku sonko ku ko songu sax ku sonko ku ko songu sax ku sonko aka neex a faral sonko ku ko songu sax ku sonko ku ko songu sax sonko ku ko songu sax ku sonko aka sàppaaral sonko ku ko songu sax ku songu sax ku sonko ku ko songu sax ku ko songu sax di laaj songu sax ku sonko ku ko songu sax ku sonko ku ko songu sax ku sonko ku ko songu sonko sonko moo fi nekk baay one love gaay Sonko for life yow yalla la yàlla sam ar la sutra la sam la senegal nag paré nañ doo ñu gën gore loolu la lu la ko jaral rek lu ko raw jaral nañ ko affaire bi dafa dépasser sa personne dañ né li dal Mamadou ja dal bu la job, dal Cheikh Anta Jóob du la dal billahi bu ñu naree dal yalla nañ ñu ray nga dund billahi wallahi peuple bi nenañ Sonko yow yaay dund ak jamm yow kenn du la laal

Eh, Sonko ak neex faral Sonko ko Sonko sax Sonko jour na seen bàyyi acca casase yi loolu moo tax ma def ko ci rythme casase parce que casase yi xam nga c'est le sud c'est le rythme Sonko Sonko Sonko Sonko ak neex a faral Sonko Sonko Sonko Sonko ak neex a faral Sonko Sonko ko Sonko sax Sonko Sonko ak sa paral Sonko Sonko kon neex a faral Sonko Sonko Sonko ku songu sànq Sonko Sonko Sonko ak a saa paral Sonko Sonko ku songu sànq Sonko ku songu sànq Sonko ak a neex a faral Sonko Sonko Sonko for life yo